jot suñu vidéo nag foo leen si biir réew mi wala si biir réew ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo ngir mën a xam li xam ne moom lañ waxtu tey parce que il fallait dem certainement condition sécurité yu baax pour mu bañ am problème daal. donc euh, yàlla def na ci jàmm àjjana ak jàmm tribunal bu di kanamee rek bu juge bi ñëwee tribunal ubbeekoo incha allah ñu jébbal ko juge bi pour liñ ko war a entendre dañ ko convoqué ngeen ko xamee àjjuma waaye ni condition yi demee donc mënuñu ko woon a déglu léegi dàq ko ba ci vingt quatre heures yi mu tombeek lundi parce que àjjuma samedi ak dimanche kenn liggéeyul loolu moo tax mu ñu muy dellu tey ñu nag ñu ko donc ci gannaaw disposition la cent un bu code procédure pénale may na ko donc mu dem ba lundi waaye mu ngi woon ci loxo ñi ko téye woon donc gendarmerie donc évidemment léegi loolu moo tax ñu koy présenté tey ci suba. Mhm. Euh, léegi juge bi lan moo tax mu convoqué ko mbirum viol beeg euh, menace de mort bi. waaw ni ñu ko xamee dossier boobu ne woon huitième cabinet juge Mamadou Seck moo ko yoroon jot na ci sax def yenn jéego yu ndaw mais apparemment mënul continuer liggéey bi mu daal mu naan daal ko yor léegi nag dossier boobu la jox doyen des juges d'instruction Samba Sall moom nag moo ko convoqué donc ci cadre boobu lañ ko woo effectivement te comme ni ko euh, yoon waxee article cent quinze suivant cent quatorze cent douze yëpp mandat dama ne il faut ñu bind ci motif convocation bi te effectivement loolu ci bind ñu xam ni comme ci dossier boobu la de viol ak menace de mort voilà damay confirmer kon loolu. maître Khoureyssi Ba dañuy daal kon dem ci tribunal bu Ndakaaru fekk foofee suñu ndaw Papa Balla Gaye moom itam ca fajar cuuy la xëy foofa Papa Balla noo ngi laa ziyaar. maa ngi lay euh, fay Malal Junior Diagne. loo jotoo tataan ci xabaar foofu ci tribunal. waaw euh, fii euh, comme niñ koy waxee rek tekki tekkaaral lañ fi nemmeeku waaye terewul nag ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñoom ñëpp ñu ngi fi am seen dispositif nga xam ne gu am solo la ñu fi teg daanaka pour nga mën a jàll faw nga wane carte wala lu mel noonu wala nga expliquer daal ba fexe. noo mën a rombee waaye ba tey euh, du tere ñoom liggéey euh, xool di saytu kii dugg ak kii a euh, ci fi nga xamante ne moo wër tribunal bu Dakar bi yëpp fépp nag wala yoon yëpp yoo xamante ne mën ngaa jaaree jëm ci tribunal ba dañu ko daal di teg ay checkpoint yoo xamante ne nag mooy tax nga daal di mën a romb wala ñu ne la nga daal di wëri loolee moom daal lañu fi nemmeekoo gum tek tekkaaral ak leneen loo xamante ne bi ñu jotee wëndeelu tuuti muy daanaka boutique yi nekk fii ci côté Sandaga bi nii euh, lépp dafa daal di tëj mu mel ne ne kon gars yi xiisi wuñu ndax ragal euh, mbir yi daal di déborder comme na mu amee woon ci fan yi ñu génn waaye daal euh, loolee lañ fi mën a jàppagum Malal Junior Diagne di xaarandi kii di Ousmane Sonko comme onze heures la ñu ko convoqué di xaar mu saa di mën a janoog ki nga xam ne moom mooy doyen juge comme li ñu ko waxee Malal Junior Diagne ngeen jot suñu vidéo nag foo la toll si biir réew mi wala si biir réew da ngeen di abonné fii ngeen mën a jot moo leen ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam